ñu ngi ci waajtaay yu mujj yi bu màggal bu Mbàkke Kajoor fii nag ñépp a ngi yëngu su dente ni ñenn ñaa ngi ci defar ñam yi ñeneen ñaa ngi ci installation tant yi ngir rekk dalal seeni gan ci anam yu mucc ayib waaye ci biir daara Hizbut ya mbir yi yemul foofu ndaxte am na ay jumtukaayu sonorisation yu am solo yi nga xamante ni indi nañ ko ngir rek amal ay njàng xasaayit yu am solo. samedi ci suba xëy nañ fi ñëw sunu PA bi yëpp muy haut yi installé nañ ko ba fépp fu waay toll ci dëkk bi di nga yëg ni wax dëgg fa yàlla bis bi moom jege si na nga xam ne xasaayit yi moom fu waay toll dina ko dégg loolu defoon nañ ko depuis samedi. dimanche altine tey jii ñu xëy retour yi nga xam ne mooy biir mbaar mi ak li nga xam ne moo war mbaar mi ñuy installé sonorisation bi. makaarimal axla ñoom it kenn demul ñu des ci biir waajtaay bile ñoo ngi yëngu ngir rek lépp jaar ci yoon. ginnaaw sëriñ bi bi nga xamante ni si jot na ndigal ci sëñ Sidi Mokhtar ci la ñu woo daan ñu fi yebal ngir ñu ñëw nekk ci liggéey bi lépp loo xam ne wareef la fi rek ci dalluwaay ak karange bis bi ak saytul ak lepp lu fu dongo wara taxawé rek maam mu yabol suñu jëwrin rijal Gueye bola kak dongay ñun ñëpp ñun ñëpp njabotam lañ ñu bokku fi ñëw ngir matalé ndigal lolu daira Ahlu Café Touba ñomit ñoo ngi yëngu Ahlu Café bi comme niñ ko def ci yenen magali rek da naka magalu xew-xew sëñ Touba bu xew dañ fay dem bu jub se dañuy dem bala dëkk ba bam mu set su bisu magal ga ñëwé ñu dem tangal café ak mëna xeetu bernde bu man wa café gi nak moy baas mom lañuy jëkke mom lañuy mujjë demb lañ ñëw ci timis bi ñëwé dem nañ sëñ bi siyaare ko wax ko ne ko mbooloom wa axlu café ñu dañu bëgg tàmbali liggéey tay ci guddi mu jox ñu digal demb ci guddi nañ tambali bernde café gi ay waxtu yu neew des ñu yegg ci magal mbacké kadior mën nañ wax ne daanaka lepp yemb na ngir magal bu baax magal bobulé ñu diko ko amal ngir màggal gane àddina Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ibnu Xadimu Rasul nekk waajur ci xalif bu Touba mu doon xew-xew bi nga xamante ni ay junne yi junne yi taalibe murit ñoo fi tase